salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna guy gi 95 ne la 15 15 mois 95 Malika tey nag ñu ngi fii Pikine fas yéene ñëw waxtaan ak population bi li nga xam ne mooy actualité di fait divers ci semaine bi ñu cité ci ñaar muy cas Adji Sarr ak cas patron am ñu ñëw bëgg a waxtaan ak jeunesse bi bu war a waxtaan ak àdduna parce que wax ma bu génnee ku nekk ak ni ñu koy analyser ñu xool Adji Sarr ah communication ak patron bi nga xam ne génn na mu jaral ko mu jël kaamel di waat fan lay xewee Africa rek ànd ceeg Africa rek. te man daa ba pare Adji Sarr wax laa gën a gëm quoi wax dëgg fa yàlla moom laa gën a gëm que Sonko li mu wax man. franchement keroog li Adji Sarr wax keroog nga gis ne am na cooloo xam ne amoon na am ay moor Adji Sarr génn defaat sorti dëgg. waaw non parce que dëgg moom mooy mujj quoi wax dëgg. lu métti métti métti dëgg yàlla rek a xam ñoom ñaar bu fekkee Adji Sarr li mu wax dëgg la yàlla rek leen mën a àtte quoi mais dëgg moom mooy mujj ak lu mu métti métti métti dëgg mooy mujj waaw man loolu laa gis quoi ak même bu nu nit ñi dee dee yëpp tamit na il faut ñu leeral dëgg quoi pour man nit ñëpp dañoo war a maanu bàyyi justice def liggéeyam quoi ñu xool kuy am dëgg ñu xam ne kookoo am dëgg quoi man loolu laa gis franchement mais Adji Sarr man li mu wax man gëm naa ko dapa pare quoi man. nga man Adji Sarr su ma koy dégg sax sama xol lay tooy quoi turam rek man parce que man mënu ma comprendre leen quoi viol ak li si yàlla wax ñu bëgg nasaxal Sonko nii pour lan bañ a présenter wu élection vingt yi. maa ngi jégalu si jooy bu quoi parce que man jooy suma ma bettee rek rongoñ du génn a ngi jégalu baax a baax mais am na loo xamante ne dafa ñaw Sénégal gi ñu ñoo ko moom kilifa yi wax nañ génn wax nañ ba pare ba affaire yi nga xamante ni jàmm mi ngi commencé waat ñëw Aïssa lan lay génn di ubbi làmmiñam di wax di sonal nit loo xam ne dafa war a jeex quoi parce que manipulation ñun dañ see sonn.

comprendre nga may wax maître El Hadj xam nga xam nga xëy baaxul na bàyyi wax ji bay bàyyi affaire yi mu jeex dégg nga maître El Hadj bu noppee ci affaire yi rek affaire yi jeex dégg nga moom moo gën a xam ba affaire yi xam ama affaire yëpp ñu teg ko ci suuf man du ma dénoncé kenn ku dul maître El Hadj waaw xam nga affaire bu amee nii da ci ciy xëpp ndox mu sedd yaa ngi may dégg que tey on sait jamais kii euh, Sonko mun na fi nekk tey président Adji Sarr tamit comprendre nga tey mun na nekk leneen ñoom ñaar ñëpp ay doomu Sénégal la ñu maa ngi daal ñoom ñaar ñëpp ñu bàyyi coow li mu jeex wala ñu bàyyi justice def liggéeyam comprendre nga est-ce xam nga parce que tey kenn mënul taxaw ne fii la dëgg bi nekk comprendre nga kenn mënu ko kenn mënu ko wax man daal maa ngi koy ñaan maa ngi rus naa sax léegi sant Sarr <laughs> dam ko rus dam koy nëbbatu léegi. waa xam nga rafetlu wuñ ko waaye tam mën nañu wax ni.

lolom digënté ñom ñaar la mais lu ci mëni am dal euh, nan fexé ba réew mi am jamm rek ndaw ña mëna liggéey wa dal mom moy lam solo waaw li dess nak mom sa kam calmé na calmé na nan bay mu sédd rek parce que mo gën nak ay seul lañ wara liggéey wara am lu bari bari wara am kër wala am lén ak lénen da daanaka li ñu yàq li su alal la si ñu lañ koy war rek kon ñu bay yaq gi xol li nu man li ñu neexalu naqa dal jim ko muñ dal mo gën parce que yàlla dogal na ki fi nekk ne bare moom ñu toog rek boo kero mu war a jeexal jeexal daal. ah loolu dëgg la senegal Sénégal toll na jamono ji nga xam ne man de bu ma ay frère wala mu nekk euh, bu doon frère am dama koy digal ne mu jël lépp dëxañ ko ci suuf diggante moom ak Sonko ak yàlla rek ñoom ñaar rek ñoo xam su moom maa jël lépp teg ko ci suuf bàyyi lépp ci loxo yàlla yàlla dina leeral lépp bu dee am dina leer bu dee amul dina leer waaye génn di. frère ñu gis fan yi li nga xam ne génn na muy feedu weeru Adji Sarr sorte bi nga xam ne keroog def na ko wax ban jàngat nga ñam ci loolu. non man moom ma ci am wax dëgg fa yàlla franchement pare man dama dama jàpp ne quoi Sonko ak Adji Sarr xamante bu baax ñoom ñaar peut-être am na lu ñu yàgg sekk quoi mais Adji Sarr tamit peut-être tamit. Euh, ñàkkul ni muy communiqué quoi ak ni muy waxee ñàkkul ne tamit ay fen am na ay fen na ci quoi baal ma ci wax bi